Abdou Thiam ñu ngi lay nuyu. madame maa ngi lay bu baax euh, yaa di vice président commission communication parti démocratique sénégalais euh, tey gis nañ Karim wadd ci gradin yi foofu ca Qatar ba Sénégal di jouer ak euh, Pays-Bas euh, tey ñu bëggoon xam euh, lan mu wundu déplacement Karim wadd ca Qatar ndax pour ca stade ba ndax pour supporter woon sa équipe bi la bu ñu xamee ni tey président Macky Sall moom itam mi ngi woon foofu euh, ndax jot nañ am ab ndaje euh, est-ce que aussi du woon ab prétexte ngir ñoom ñaar ñu daal di euh, daje est-ce que mën nga ñu leeral ci loolu. waaw madame maa ngi lay sant bu baax di la remercier si sa question bi di wax ne jamono ji xel yëpp ak xalaat yëpp ñu ngi jëm Qatar au moins Sénégal waaye adduna bi yëpp foo dem tey actualité bi Qatar la Doha waaye nag ñun Sénégal fii boo waxee Qatar rek sa xel suñu xel yëpp ngi dem ci Karim Wade ndax yàlla moo def parce que yéen ngi fàttaliku am na fa juróom-benn at yoo xam ne Macky Sall moo ko jëlee yóbbu ko ci ci force yóbbu ko Qatar yàlla def nag moom bo léegi ñëwul Sénégal waaye Sénégal ñoo dem fekki ko donc mu nekk loo xam ni waxoon nañ ko fan yële na Karim Wade c'est un Sénégalais ku bëgg Sénégal la lu fi lépp loo xam ne xew na ci réew bi dugale ci loxoom muy gàmm muy màggal Covid bi amoon sax gis nga yónnee na ci ay vaccin pour jàppale ko état du Sénégal donc lépp loo xam ni dafa intérêt Sénégalais yi moom da ci dox da ci xar tànkeem donc football bi aussi mu nekk loo xam ni Sénégalais yëpp ñoo ko bokk moom mu nekk Sénégal nekk Qatar ale Sogo il faut mu dem jàppale gaynde yi il faut mu dem ànd ak nekk ak supporter yi saafonte ak ñoom jàppale jàppale gaynde supporter gaynde loolu la def mooy loo xam waro garam la donc de vraiment dañ ko sant di ko remercier bon maintenant nag man gisuma fu mu tase Macky gisuma fu ñu daje waxuñ ma ko informé wuñ ma en tant que chargé de la communication gisee donc loolu moom mooy loo xam ne mën naa leen ko wax di rafetlu bu baax baax taxawaayam. kon mën nañu wax ni tey Karim Wade demam ba di euh, ci stade ba euh, ci match bi doxoon diggante Sénégal ak Pays-Bas amul lenn li nga xam ne dafa am connotation politique. non kat xam nga Qatar moom jamono ji moom football rek la moo fa am fan ji moom ku dem Qatar ku fa nekk sa xel sa xalaat yëpp mu ngi ci football donc jamono ji lépp loo gis nag dafa am jamono jamono ji jamonoy football la euh, politique moom dana bu dikkee dañ ci wax mais am na jamono jamono jamonoy football la euh, jàpp naa ne Macky Sall li ko yóbbu mooy équipe nationale Karim aussi ko yóbbu stade mooy équipe nationale. kañ lay dellu si Sénégal. waaw ñu ngi ci benn processus boo xam ne commencé nañ ko euh, mooy vente carte yi commencé woon nañ ko depuis daaw sax mais dañ ko arrêté woon ndax élection locale yi fi amoon. élection législative moo tax ñu arrêté woon ko waaye depuis octobre commencé nañ jaayat carte yi si Sénégal gi yëpp seen euh, dëkk boo dem tey ñu ngi jaay carte yi dañoo bëgg tey balaa euh, décembre ñu monter suñu secteur. bu ñu monté secteurs yi pare secteurs yi ñooy section section yi ñooy dans les départements ñooy dajee monté seen fédération suñu fédération donc fédération yi dañu wax ne avant 31 janvier war nañu monté fédération yëpp donc loolu mooy les la ñu war a def bu ñu ko defee pare nag mën a préparer euh, ñëw Karim Wade donc kon xam nga ne ñëw bi yàggatul parce que mënuñu toog ba Karim Wade ñëw ñu mën a nekk ci ay section nekk ci ay fédération day ine ay xuloo yoo xam ne kenn du ko mën a régler parce que bu ñëwee xuloo xeex wartu amati dañu war a xàmmee responsable liggéey am benn stratégie boo xam ne dañuy def benn euh, plan boo xam ne yow ci yoon boo xam ne taxaw amatu ci pour dem deux mille vingt quatre donc ci loolu lañ nekk je pense que lépp lépp ngi jaar ci yoon te jàpp nañ ne vraiment avant janvier ñu mën a def suñ monter suñ fédération yëpp bu ko defee ñu préparer arrivée de Karim Wade ñu ngi ci te tout tout se passe très ñu desandi eh, ci ñëwu eh, Karim Wade ak mbirum am amnistie bi président waxoon na eh, garde des sceaux mu def kem kantam kem kattanam ngir rek delloowaat ci langum politique bi ñaari ténor opposition Karim Wade si la bokk luy seen position luy seen position exactement ci mbir moomu le xam nga parti démocratique sénégalais ñun dina wax ne Karim Wade niñ ko àttee baaxul fépp fu jëm ci àdduna bi ñoo dëggal loolu loolu ñooñu tamit wax ne Sénégal nañ ko xoolaat atte Karim Wade comité comité des droits de l'homme des nations wax ne Karim nañ ko xoolaat nañ ko atte baaxul ba état Sénégal d'accord ci loolu ñun nag ku ñuy baal dañuy wax ne ku ñuy baal mooy xanaa ku ku def dara ñun dañu defuñu dara dañu bëgg ñu attewaat Karim Wade ci loolu lañ taxaw lool lañ ñu waxoon démb ci lañ taxaw tey te lool lañ bëgg te ñu wax le président Macky Sall état du Sénégal que loolu mooy suñu mooy suñu bëgg-bëgg parce que dañoo jàpp ne Karim Wade ko atte baaxul donc boobu ba léegi ñun foofu lañ taxaw te foofu lañ nekk ba léegi bougé wuñ benn yoon. ngeen tàmbali woon njaayum carte bi ci biir euh, PDS foo leen si toolu jamono ji. waaw jamono ji ñi ngi ñi ngi jaay carte man mii rek yàggul rek commencé na monter ay secteur moom laa loo xam ne dañu war a monter secteur avant le 31 décembre man maa nekk superviseur au niveau euh, boo xam ne moo war a englobé Grand Yoff grand euh, englobé Parcelles Assainies Padoua Cambérène commencé nañ monter ay secteur man mii monté naa fi secteur bu yàggul a Grand Yoff euh, ñu ngi dugal carte yi ñu ngi placé carte yi tout se passe très bien ñu ngi def ay réunions euh, dans toutes les sections dans toutes les fédérations incha allah je pense que avant 31 décembre secteur yëpp dañ ko mun donc amul benn problème boo xam ne vraiment nette nañ ko en tout cas man fi ma toll ak li ma di benn problème boo xam ne yëg ci ci njaayam carte tout se passe bien ñëpp wax nañ leen li tax ñu war ko def parce que il faut ñu defar liggéey bi balaa Karim bi ñëw. Euh, ñëpp comprendre nañ ko te ñëpp ci góorgóorlu bu baax a baax donc tout se passe très bien et je pense que d'ici 31 décembre dañu monté secteur yëpp te mooy loo xam ni moo gën a métti moo gën a jafe parce que bu xasee monté secteur secteur yi ñooy daje am seen i délégué ñu ñëw ci section bi donc secteur bu nekk day envoyé cinq délégués. Hmm. nga monter section après section fédération au niveau départemental pour ñu monter seen fédération donc ñu ci en tout cas actuellement étape boo xam ne moo gën a moo gën a moo gën sensible tout se passe très bien amagul benn problème. d' accord euh, ñu wax euh, ci situation ci assemblée nationale session budgétaire bi euh, jeudi bi passé la daal di tàmbali ñëpp di doon xaarandi ab rupture mais mu mel ni amul benn blocage ba vote yi daal di tàmbali ba léegi ñenn ñi sax di joxañ baaraamu tuuma yenn député yi nga xam ne dañoo bokk ci coalition wàllu Sénégal ne jamono ji ña ngay voté pour pouvoir bi ndax ab mot d'ordre bu parti bi la. xam nga assemblée tey li li lépp leer li sénégal Sénégalais gis mooy assemblée bi dafa dañoo opposition bi ak ànd ak pouvoir dañoo tolloo doole mooy li wér kenn ëppul sa morom doole. assemblée bu mel noon nag man damay faral di wax ne bu amee bu dul assemblée mel noonu sax li war a am moo di ne dañu war xool lépp loo xam ne day jëmale dëkk bi kanam wala baax na ci dëkk bi ñëpp d'accord ci lépp loo xam ne baaxul ci dëkk bi day day tax dëkk bi day baaxul day arrêté dëkk bi. ñu bañ ko donc mooy li ma wax rek ci tubaab mooy une majorité d'idées assemblée dafa war a agsi foofu boo xam ne foo far parti boo far dafa war a jóge ci lool lépp loo xam ne gis nga ko lu baax la ci réew mi waroo ci xaar kenn da nga ci war a taxaw et je pense que loolu mooy waru garu député et je pense que wallu taxawaay bi ñu def nii man pour man taxawaay bu may rafetlu la parce que lu am solo la parce que jàpp naa ne foofu la ñëpp ñëw lépp loo xam ne gis nañ bu baax la ci dëkk dañ war a wote lépp loo xam ne bu baaxul ci dëkk bi waruñ ko ànd ak kenn loolu au delà des députés de Wallu députés Yewwi depuis waa benn bokk yaakaar noonu la ñu war a def lépp loo xam ne gis nañ ne lii nag moo war a am li baax na dañ ko war a ànd ak moom ñu ko donc loolu je pense que euh, damay lancer un appel à tous les députés ñi ñi ñi changer doxalin euh, assemblée du affaire parti assemblée affaire askan wi la lépp nañu bàyyi xel askan wi ñu leen fa d'accord euh, ñu génn tuuti ci politique wax ci euh, denrée yi nga xam ne euh, annoncé woon nañ ni dina daal di wàññeeku bu baax ministre bu dénk wàllum commerce sax ba mu génnee nee na def na le tour des marché soixante quinze pour cent ci marché yi wàññi nañ waaye mu mel ni rek lii association des boutiquiers ak détaillants yi fas yéene def maanaam grève jeudi ak vendredi day weddi li nga xam ne ministre bi loolu la wax ñoom nee nañ dañuy daal di grève Euh, dootul du ñu ubbi est-ce que euh, li ni mel du jur euh, du indi ay gàllank ay jafe-jafe diggante commerçant yi ak consommateurs yi. waaw xam nga wàññi nag moom boo ko déggee rek lu mu mel tu mel baax na parce que quand même jaboot gi nit ñi dañoo sonn donc loo leen wàññi nga wàññi ci logement yi wàññi ci ceeb bi wàññi ci diw lu mu mën a toll jarul xeeb man daal wàññi moom boo ko déggee rek mooy jarul xeeb. naa nag état bi wàññi na waaye gis ci anam mi mooy problème bi. Hmm. parce que am na ñoo xam boutique yoo xam ne ak commerçant yoo xam ne état bi ni nga ko doxalee xëy rek ne ngay wàññi par force yéen ñëpp tey koy commencé je pense que foofu am moo am donc loolu dama jàpp ne ministre bi tey war na toog ak commerçant yi ak waxtaan ak ñoom ak consommateur ñu xool ni ñu régler problème boobu. effectivement bu doon bu doon dañuy yokk prix aussi jàppuma ne est-ce que dañuy xaar weer wala ñaari weer pour yokk. commercant yi loolu aussi dëgg la mais loolu lépp waxtaan moo koy réglé parce que quand même bu ñu waxtaanul ah gis nga dëkk yoo xam ne tey ñu ngi commencé am yoo xam ne tey suukar ñàkk na ko yeneen produit ñu ngi commencé ñàkk lu ko tax parce que commerçant yi dañuy tëj seen boutique loolu yeneen problème yoo xam ne sax dañuy wax saafara bu jur jàngoro lay doon da nga yaa ngi doon wàññi waaye tey gis nañ ne population day gën a sonn donc loolu aussi ñu ngi xel ministre bi mu bàyyi ci xel loolu waxtaan ak nit ñi parce que nit ñi dañooy sonn ndax prix dañoo cher trop trop inflation bi prix li ñu yokk ëpp na 7 pour cent donc prix bu rek mooy mën-mën ngi day wàññeeku donc loolu aussi dañuy wax gouvernement bi mu bàyyi xel que affaire bi du yëfu doole du affaire gendarme du affaire service du commerce affaire wu ñëpp la waxtaan moo koy réglé parce que bu ñu waxtaanul ama anam nam niñ bëggoon ci wàññi bi du demee noonu donc loolu c'est un ñu ngi koy appel boobu pour ñoom ñu toog waxtaan pour ñu régler problème bi parce que quand même Sénégal yi soto nañu dund gi cher na loolu moom kenn mënu ko wetti ci réew mi. Mm-hmm. ñi ngi wax annoncé euh, effectivité wàññi bi soixante quinze pour alors que euh, boo demee ci marché yi wàññi amul. waaw xam nga euh, moom laa wax ministre bi aujourd'hui dafa nekk ci mbir boo xam affaire communication lay wax rek moom li muy wax waxut ak ñun day wax ak président Macky Sall lay tax mooy wax. Mm-hmm. xam nga moom dañ ko indi ku donc foog mu indi indi waaye li gis ni ñu gis mooy wàññi bi moom des na ci gox yu bëri des na application bi des na mais aussi lu tax application bi des mooy commerçant yi ñoo am problème ak activité ñoo am problème donc loolu dama gis ne dañoo waroon toog waxtaane xool nu ñu régler problème boobu buñ ko deful li ñuy wàññi dañ indi ñu daal yeneen problème yoo xam ne mooy gën a métti wàññi da ngay gis koo xam ne tey maa ngi déglu ci rajo bi ñoo xam ne tey dañuy wut suukar amuñu ko donc li nga bëggoon def mënoo ko def perte ak yooyu ngay perte ku waroon liggéey liggéeyoo kon moo pour man moo gën a métti sax am suukar bu cher ñàkk ko moom euh, moom moom moom li mu indi moo day indi gàllankoor yu bëri donc foofu la ñu war a taxaw wax ministre bi affaire yi du ay pourcentage du ay chiffre affaire bi mooy li nit dundu dund li nit ñi dund mooy wàññi bi des na ci gox yu bëri wàññi bi des na ci dëkk yu bëri loolu pour ñu régler ko il faut ñu toog ak yi toog ak boutique yi toog ak consommateurs yi ñu waxtaan ñun ñëpp bëgg nañu wàññi waaye nag ah ñun ñëpp ay sénégalais benn sénégalais waruñu ko ci gaañ ci ci ci ci mbir bi ñuy def donc ku nekk na nga bàyyi xel sa morom bu dikkee ne bàyyi xel que nit ñi ëpp ñoo ñu ñuy jënd euh, ñoom it nit ñi aussi bàyyi xel ñoom it war na leen am lu ñu leen seet ku nekk bàyyi xel sa morom bu ko defee ñu bëgg jëm ñu bëgg àgg dañu fa àgg donc loolu mooy suñu yéene di wax ne vraiment ministre bi ñun dalaat xelam toog ak commerçant yi toog ak boutique yi toog ak consommateur yi ñu xool li ñu appliqué mbir mi waaw parce que nit ñi sonn nañu prix yi cher nañu nit ñi moom wàññi bi moom dañ ko yàqam dañ ko lool waaw loolu moom mooy nit mooy dëkk. Hmm. réew mi moom actuellement fu mu toll ñëpp a sonn. Abdou Thiam ñu ngi lay sant di la gërëm. merci madame maa ngi lay sant bu baax di leen sant bu baax ci question yi. d' di fàttali yaa di vice président commission communication parti démocratique sénégalais.